asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi nekk ci Uras yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu ñiy déglu ci Ahlul Bayt ñëpp itam ñoo ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ngi déglu te nekk ci Xum TV Xum ah, TV sànni nañu leen euh, caabim ji danañ ko sànniwaat léegi ci kanam ah, dañuy ànd ak nit ñi nag ci diggante Ahlul Bayt ak Xum TV ak Urasul Irada Euh, ñu xam ne képp koo xam ne sànni nañu caabi xum TV ci sa déglukaay na nga ko jël su fekkee ni bëgg nga jël yi génnee ci urasul irada nga dugg foofu nga abone walla nga dem ci alul bayti foofu nga abone dinañ dox ak yéen nag euh, xëy na ba guerre bi jeex ndax guerre bi du yàgg te ginnaaw nit ñi bëgg nañoo xam lépp ni mu demee bëgguñu leen tëj noonu ci kaso duñ te xam ni mu demee waaye nag ku jëlul ci ñaari yooyu caabi benn di nga toog ba dootoo dégg lu bokk ci lu dul alxuraan ji ak njàngale mi kese yi ci def yëpp moom foofu lañ koy dugal léegi nag ñu demal leen ci axbaaru Palestine mi na télévision al arabi xibaar yi ñu njëkk indi télévision bu ñuy wax al arabi moo ko indi ñun lañuy liggéey rek mooy déggal leen waxi ñii wax ba noppi tekkil leen ko. للتغطية الآن أرحب بدكتور فايز الدواري الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من عمان دكتور فايز أهلا بك كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية مقارنة مع الجولات السابقة يعني هذه هي الحرب الرابعة 2012 بدأت من حيث انتهت 2008 و2014 بدأت من حيث انتهت 2012 والآن تنتهي تنتهي أو بدأت ال 2021 من حيث انتهت 2014 منحنى أداء المقاومة هو منحنى صاعد في هذه الحرب هناك تم الكشف عن أربعة أسلحة نوعية صاروخ 120 صاروخ عياش 250 صاروخ عفوا طائرة درون والآن عن الغواصة أو التوربيد الذي يحمل المتفجرات هناك waaw al arabi dafa laaj benn xabiir stratégie xabiir askari bu ñuy wax docteur Faiz Adwari mu dëkk Qatar mu ne ko docteur Faiz Adwari waaw xeex bii nga gis mu dag dox diggante Palestine ak Israël lan nga ci mën a eh, taxaw seetlu ak lan nga ci mën a jëlee Faiz yi ne ko guerre bi dañ ko guerre ñetti yoon bii ñu nekk moo di ñeenteeli yoon waaye ger bi ñu nekk muy ñeenteeli yoon dafa am lu ci feeñ loo xam ne feeñu toon ca guerre yu jëkk ya guerre bi dafa am ñeenti façon marque missile yoo xam ne ñoom Palestine ñi ngi ko yore di ko sànni te bokkul ci liñ yore woon ca guerre bu njëkk ba guerre bi Palestine dañoo am ay avion drone yoo xam ne dañ koy sànni muy avion kamikaze yoo xam ne dañ koy giide mu mel ni bomb bu amee laaf te loolu amuloon ca guerre bu njëkk ba guerre bi palestiniens yi dañoo am ay sous yoo xam ne dañ leen di guider sans pilote lañu ñu yor ay bomb moom ñu mën leen a jiital di leen di maanaam ñu mën leen a doxloo ci biir ndox mi di leen guider te nekk ci biti ñuy bënn ay gaal ci biir géej te loolu amuñu ko woon ca geer bu njëkk ba te noonu mu ko waxee noonu la demee palestiniens yi ñu ngi déparé ci sànni xeer ak jami paaka ci loolu lañu déparé ak sànni ay cocktail molotov Ah, léegi dem nañ ba ñu ngi ci sànni ay missile yoo xam ne guidé par par rayon X kon boo Israël ci boppam war naa xam ne Palestine ñi ngi góor góorlu te ñi ngi gën a yokku bii yoon mooy seen ñeenti congoo boo xam ne congoo nañ ko ci guerre te songoo mu ñu songoo rek Palestine dina indi xeeti gànnaay yu bees yoo xam ne gisuñu ko woon ak moom mu gën a jekkandiku gën a taxaw gën a mën a résister هناك اداء متميز بالتغلب على قدرات القبه الحديديه. اسرائيل تسعى لتحطيم اراده القتال كهدف استراتيجي والقضاء على القدرات العسكريه للمقاومه كهدف عملياتي والقضاء على الانفاق كهدف تكتيكي. لم يتحقق اي منها. لا بل نحن mu ne Israël ci boppam jàkkaarloo gi mu jàkkaarloo ak euh, Palestine ci bii yoon am na ci échec bu mu am échec bu njëkk bi mooy xubbatul hadidiya yooyu nga xam ne ñooy batterie à missile yi yore missile yi yore missile anti missile dañ daan mën a kar missile yi arabe yu yu yu yu Palestine yi ba duñ mën a dugg Israël te léegi loolu day échec mënatuñ ko ñaareel ba Israël bokk na ci lim bëggoon ne bu daree yoon jibi yoon Hamas rey mboolem luy ga luy soldaari Hamas ba ñu jeex loola Israël mënu ko te na ci Israël bokk na ci li bëggoon su di songaate Hamas mbooleem batterie à missile yi Hamas di sànnee ay missile ak seen magasin armée yi ñu bombardé ko te loola échec na bokk na ci li Israël bëggoon al anfaax yi nga xam ne ndax ñoom dañoo def ay dal ci biir suuf si fi lañ def ay kaaw denc fa seen yëf Israël ci songam mi dafa yaakaaroon ne mën naa songu daa toj mboolem anfaax yooyu ba gaa yi daa di désarmé wu duutuñu amati gànnaay gu ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom loolu tamit échec na kon point yi Israël doon xeex yépp point yépp dafa échec نحن الآن نتابع ضربة بضربة قد تكون الضربات الإسرائيلية أكثر إيلاما أكثر وحشية أكثر دموية تدمر البنى التحتية لكن المقاومة تقدم أفضل ما تستطيع وهي أصبحت ند من حيث الرجع مقابل الرجع نعم أولا دكتور سيد فقط أود أن أشير إلى هذا الخبر العاجل bala mu ñu ci xibaar bu aajil boobu ma leeral li waa ji wax léegi Eh, dafa wax ne a am na loo xam ne xew na eh, ci xeex bi eh, te bu njëkk xewut woon Israël bu mosoon a songu palestiniens yi day bombardé nu mu ko neexee gars yi duñ tal sa xafa dañuy nëbbatoo ko seet fu ñu muccee léegi nag darbatun bi darba la ñuy def gungu mu gang la dóor fayu loolu lañuy def te loolu bu njëkk amul woon bu Israël ma sono song gars yi di leen bombardé duñ talafa yu léegi nag téll téll téll mu ni téll téll mu ni téll nee na noonu la ñuy xeexe léegi waaye nag Israël moo gën a mettile nu muy dóoree palestiniens yi ndax moom day bombardé ay états yi nit yi nit ñi di reyaale ay population civile di daane ay kër di yàq seen alal te palestiniens yi ñoom doxewuñu noonu dàkkuñu population bi daanewuñu ay alal yàqu ñuy terrasse waaye nag bari na lu ñuy yàq ay mbandi pétrole gaa koy taal ay mbandi gaz gaa yaa koy taal loolu nag maa ko wax maanaam fële la waaje yem mais li mu junj loolu lay leeral ay mbandi gaz gaa yaa ngi koy taal aéroport yi dóor nañ leen ay missile ba aéroport yi mënatuñoo yóbbooti ay nit eh, gental nañ dëkk yi dëggutu ci seen biir an faaxi na bëtookaay yi ndax mënatuñoo génn Euh, di di di di di ja ñoom population Israël ba mën a doxi seeni soxla li Gaza am sax li daw di nëbbutoo ko génn ñoom Israël ñoom dafa mel ni seen dëkk ba daa gent dara nekku fa ndax ñoom dañoo wut seeni dal di nëbbutukaay te ñi wu ñu dee bu bomb yi déclassé dañuy dañuy dañuy nëbbatu ji te yàqal nañu leen nag rek ci Tel Aviv juróom-ñetti téeméeri kër yu màbb yoo xam ne palestiniens yi ñoo ko màbb yaa waxuma booba ba léegi waaye maa ngi jël xibaar ca na mu gën a leere e, du ci télévision arabe yi rek laa leen di dikkal mais bu may galee ci al arabe yi dinaa dugg ci beneen télévision may ñaan rek lépp lu ñu nett li ba mu egg ñu xam ne al arab yi moo ko nettali waaye du Cheikh Gueye moo ko nettali ndax fekkiwu ko bu loolu bu nit ñi xamee loolu rek dox gi dana yomb léegi nag ndaw si daf koo laaj benn laaj laaj boobu moom la ñuy déglu su ko tontoo ñu leen ko عاجل جو بايدن الرئيس الامريكي يقول انه سيتحدث مع رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو خلال الساعه المقبله. تفضل دكتور، بالنسبه لما ذكرته من اسلحه جديده دخلت ndaw si daf ko ne nga may ma ma dugal xibaar boo xam ne daa daanu si léegi doon bu bees nee nañu Joe Biden nee na tey bu toogee xawma fii ak ñeenti waxtu ci kanam am na waxtaan woo xam ne daf koy waxtaan moom ak benn Benyamin Netanyahu waxtaan woowu buñ ci eggee danañ ko wax ba nit ñi dégg ko xam ñoom ñaar ci lan lañuy ñuy waxtaanee ak luñ jiboo loolu daf ko pataxal ci biir wax ji continuer waat laaj bi ñu dagg foofu audio bi duggaat ci deuxième audio ngeen déglu laaj bi ak tontu li nga xam ne moom la moom la moom la moom la docteur di tontu. على خط المعركة ألا يعلم الشباك بوجود هذه الأسلحة والصواريخ لدى حماس؟ لو كان يعلم بها لاتخذ إجراء ولا أعاد الحسابات هو كانت تصوراته بناء على 2014 لأنه غزة دخلت في مرحلة الحصار والخنق التام من منتصف 2013 بعد الإطاحة بالرئيس مرسي تم إغلاق الأنفاق تم إغلاق كل شيء وبالتالي كانت قراءة الشباك كما أظن وأعتقد أنها الآن حماس خلعت أظافرها ولا تستطيع أن تضيف شيئا لما كان بين يديها لكنها تفاجأت وكما تفاجأنا نحن كمتابعين تفاجأ مدير الشباك والشين بيت والموساد وحتى رئيس الأركان ورئيس الوزراء وبالتالي نحن نترقب ما يق... léegi nag ndaw si ne ko waaw agent secret yi ñuy wax saabaak ak siim beeg ak Mossad nga xam ne ay agent secret yu Israël lañu ñoom ñi nga xam ne ñooy jox xibaar gouvernement Israël mbett mii ñu ba bi ñu songee Palestine gars yi di leen dóor missile yu toll ni yii ñu leen di dóor ah, te da ngeen dégg ne eh, gars yi mën nañ ko def lu mat ñaar fukki semaine ak lu topp ci kanam yoo xam ne bis bu nekk ñu lancé junniy missile loolu gaa yi mën nañu ko waaw léegi xanaa ñoom yëguñu woon loolu wa am sóoraale wuñu woon ne Palestine am na lu toll noonu ci gànnaay mu ne ko waaw suuraale wuñ ko woon ndax Muhammad Mursi bi nga xamee ne falu na Israël ànd ak soldaar yi nga xam ne ñoo bokk ak moom ca biir armée euh, Égypte ba jàpp ko sàkkal ko pexe rey ko toog seen place 2013 dañoo tojoon mbooleem bunker yi nga xam ne moom la waa Hamas defaroon wëlbatiku Égypte ci boppam jëli roppalaanam bombardé digganteem ak ak ak Gaza mboolem yooni suuf yi nga xam ne gars yi gasoon nañ ko di fa jaar ñu bombardé ko sakku ko tëj seen diggante ak ñoom ne dara dootu fi dugg loola moom lañu naagoo woon ñoom Israël ba defe ne Hamas amut yeneeni pexe moo tax ñu defe woon ne gars yi désarmé nañu leen ba yeggal ñu songu leen nag gaa yi feeñal armée yi ñu xalaatu doon ne sax ñoom am nañu ko ما يقول أبو عبيدة لأنه مصداقية لدينا ولدى الشارع الإسرائيلي ارتقت على على مصداقية نتنياهو ووزير دفاعه نعم دكتور بالنسبة لقدرة المقاومة الفلسطينية على الاستمرار والمضي في هذه المعركة إلى أي حد يبدو مداها والله أبو عبيدة بلغ, بلغ الجميع وقال نحن مستعدين لستة أشهر قادمة م. لنعتبر أن في تصريحه نوع من بث الرعب لكن لا أعتقد أن هناك شح في مخزوناته وموجوداته وتستطيع أن تخوض أسابيع قادمة من حرب مستمرة على نفس السوية والوتيرة نعم ولكن لو انت مطلع اكثر على تطورات الاوضاع العسكريه من حيث عدد الصواريخ التي تمتلكها حماس وبالطبع لا نعرف عددها léegi bi loolu jàllee ndaw si daf ko ne ah yow mi nga xam ne xabir askari nga yow ban diir nga yaakaar ne nii di amas di xeexe mën na ko continuer di ko xeexee mu ne ko ah abu ubayda day dégg naa mu wax ne man nañoo continuer juróom benn weer di xeex comme nii ñuy xeexe mu ne moom nag yaakaarul ne abu ubayda ñoom te ñoo di wax Hamas man nañoo kon continuer ci nii ñuy xeexee ba juróom benn weer ci kanam nee na yaakaarul loolu dafa yaakaar ne dafa wax loolu rek pour lan da ko wax pour tiital Israël moom nag loolu njortam la léegi ñu déglu waxtaan wi day continuer لكن من حيث التقديرات هل تستطيع حماس والفصائل الفلسطينية المضي في عملية مداها أو قدرتها ممكن أن تستمر إلى ستة أشهر؟ هذا ما قاله أبو عبيدة التقديرات التقديرات التقريبية تتراوح حماس لوحدها تتراوح ما بين سبعة إلى أربعة عشر ألف صاروخ أطلقت حماس منها ألف صاروخ فإذا أخذنا الحد الأدنى أمامها ستة أسابيع قادمة لأنه léegi ndaw si ne ko yaakaar nga ne ñoom mën nañoo nekk di xeex ba am juróom benn weer mu ne ko ah li ma wér daal mooy ñoom ñi ngeeg sab'ata asra alfu saruux fukki junni ak juróom ñaari junni misil moom nee leer na ko ne ñoom ñi ngi ko denc léegi nag ngeen déglu mu wax fukki junni ak juróom ñaari junni misil yooyu naka la ko Hamas di sànnante ak Israël wax ci ban gàpp la yaakaar ne ca la misil yooyu di jeex bu fekkee ni fa misilee jaarul dugg yeneen jaaraatu fa waaye bu fekkee ne na nga fay jaar affaire ba dana dana doy waar te ginnaaw ñoom xamuñu fu misil jaar dugg daal waaye xam nañ ne fukki junne ak juróom ñaari junni misil gars yi denc nañ ko yuñ mën a lancer Israël te ci misil yu mag yi lañu bokk ñu déglu ko mu continuer wax ñaat ñaata temps la jort moom mi nekkoon général généralu guerre ne moom la gars yi mën a xeexi misil yooyu لأنه الآن احنا دخلنا في اليوم على وشك اليوم التاسع وأطلقت ألف من أصل سبعة إذا قلنا من أصل 14 معناته أمامها 13 أسبوع إذا ذهبنا لكلام أبو عبيدة أمامها 24 أسبوع moom nee na juróom-ñeenti fan lañu xeexagul juróom-ñeenti fan yooyu gaa yi junniy misil dóor nañ ko ci biir Israël te léegi fukki junni ak juróom-ñaari junni lañu am ci ay missile juróom-ñeenti fan junniy missile kon léegi ñu mën a kalkin fukki junniy missile ak juróom-ñaar yooyu naka lay jeexee ak naka lañu koy eh, xeexe ak ñaata dat lay am dat yi sax moom tudd ko ci ay semaine waaye lépp ci ko bu fekkee loolu mu jot ne moom la gaa yi am fa lañ yem waaye bu fekkee armée ba ëpp na loolu nag mën naa am app bi ëpp loolu نعم طب البعض يتساءل من أين أتت الفصائل الفلسطينية بهذه الصواريخ وكيف طورتها والقطاع محاصر الآن من أين أتت هناك أكثر من طريقة لا يعني بعض لا عندما قلنا تم خنق غزة لا يعني الخنق بالمعنى المطلق كان هناك لا يزال مجال لإدخال بعض المواد وان كانت بصعوبه، لكن اذا عدنا قبل سنتين تم اكتشاف سفينه غارقه محمله بالمتفجرات، قام الغواصين من حماس ونشر الفيديو وقاموا باستخراج القذائف القديمة المتهالكة التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى وإعادة تدوير المتفجرات التي بها إذا هناك أكثر من طريقة للحصول ndaw si daf ko ne waaw fan nga yaakaar ne Hamas foofu lañu mën a jëlee seen gànnaay yooyu nga xam ne moom lañu moom la ñu jël fi mu nekk nii gaa yaa ngi ci digg xeex bi maa ngi xool jazira euh, Hamas ñu ngi sànni seen lance roquette yi ñi maa ngi gis ñaari xale yu góor yoo xam ne ñu ngi samp seen lance roquette ah di ko awlantoo bu kii dugalee bii kii dugal bii loolu moom fële la nekk ci télévision bi waaye man waxuma foofu ci beneen seen laa nekk mu ne ko fan ngeen yaakaar ne fa la gaa yi mën a jëlee doole jooju ñu am mu ne ko doole jooju fi mu ko jógee bari na am na ay bunt yu bari yiñ mën a trafiqué ay armée dugal ko foofu ndax dañu leen daan yónnee ay ndimbal ci wàllu lekk ak garab ak leneen te foofa mën nañ faa potoxalaale armée di ko dugal te da ngaa xamul ne dafa am benn cargo bateau boo xam ne ci deuxième guerre mondiale Angleterre ko moomoon ang Allemagne yi diigal ko foofu ci géeju euh, Palestine gi mu ne ko cargo bateau boobu dafa feesoon dell dell dell dell ak ay missile te ngandam bato la mu ne Hamas dañoo am ay nuurukat yoo xam ne dañoo nuuru dem ba gis bato boobu di ko roñ lu ëpp ñetti at ak ñeenti at ñu ngi koy roñ mboolem missile yooyu fi nekkoon ko fañ ko condamné woon ca biir ca ca biir ca biir ca biir ca biir ca biir conteneur ya ndox ma jotu ca egg ba yàq ko misil yooyu dañ ko roñ génne ko daa di koy ubbi yulli mboolem puutar baag posen baag defarukaay yi ca nekkoon mu nekk ay toni toni toni defarukaay gars yi defaraat seen misili bopp daal di daal cay sox loola nee na cargo bato boobu daal bokk na ci li may waa Hamas misil yu bari yi ñu am ndax ay misil lañ ca fekkoon te misil yooyu roñ nañ ko lu mat at nàngam nangam ci misil yooyu ñoom yàqu ñun yàq gu demee noona mënatuñu woon a tàkk nag waaye taalukaay yi ca biir di sunguf yàqu cum xaaj yi yàqu wut woon te loolu dañ ko génnee الحصول عليها وبالتالي الحشوات مختلفة ما بين سائلة وما بين صلبة بالنسبة للصواريخ وبالتالي في منها ما يمكن تصنيعه من مواد في السوق ومنها ما يمكن الحصول عليه من خلال عمليات التهريب او من خلال التزويد سواء ايران او غيرها لان هناك اشاره الى ان ايران ساعدت وتساعد. نعم طيب. mu ne ko ànd ak loolu yëpp nag seen misil yi da ci am yoo xam ne li koy doxal ndox la seen misil yi daa am loo xam ne li koy doxal sunguf la. te matière composé yi ñuy composé ba di ko defaree missile dafa àndandoowul doon benn waaye ñi am xam-xam ci wàllu ingénieur loolu xam nañ ne loolu day jaay loolu moom day jaay <laughs> dëgg dëgg li ñuy defaree explosif yii ba muy explosé day jaay boo demee sax am na Sénégal lañu war a boole ba defar ko te gars ñoom dañoo jàng nee lii ci marché noir bi lañ koy jënd lii itam Iran moom musta tekki ngembam ci defar ay missile di ko yóbbu Gaza di ko trafiqué di ko dugal biir Gaza nee na ko daal doole ji Gaza am daal ci diggante ñaari tomb yooyu la ko jëlee lii ñoo ko jënd ci marché bi defar ko seen bopp marché noir la lii ñu ngi ko ñëwoon ci bateau bu mag boobu lii waa Iran ñoo ko fa dugal. تستطيع القيام بعملية برية متى يمكن أن تقدم عليها؟ العملية البرية في حال إطلاق العملية الجوية بالمطلق والعملية الجوية في طريقها للإخفاق لكن هناك ضغوطات من الشارع الإسرائيلي وحتى من العسكريين على نتنياهو وعلى الطاقم السياسي للكابينت المصغر بإيقاف الحرب في هذا اليوم كان هناك احتمالية عقد إلقاء كلمة لنتنياهو ليتحدث عن الإنجازات بس عندما وضعت المعلومات امامه كانت الانجازات اقل من ان يخرج ويخاطب الشارع الاسرائيلي لكن السؤال إذا أرادت إسرائيل أن تقوم بالحرب البرية هي قد تقوم بها ولكن هل تستطيع حكومة نتنياهو أن تتحمل فاتورة التكاليف الباهظة المتوقعة من قتلى من أسرى من جثامين لا أعتقد ذلك وإذا حصلت ستكون محدودة نعم léegi ndaw si na ko waaw yow ndax yaakaar nga ne congam suuf mi Israël waxoon ne da koy songu ndax yaakaar nga ne dina ko def mu ne ko waaw ndax li waraloon mu mën koo def mooy congum kaw mi échec te congum kaw mi échec na ndax juróom-ñeenti fan mi ngi bombardé Gaza te téréwul misil yaa ngi génne Gaza par mel ay naaxi misil di bombardé Israël di ko yàqal alal te loolu su continuer roppalaan yi danañ dem ba xam ne geeru roppalaan bi mun te fay mbir mi te su boobaa Israël dina song ci suuf waaye song ci suuf bi nee na gëmut ne dina ko def ndax waxul population Israël waxul euh, kilifa politique yi Israël waaye armée Israël bii guerre ci boppam dañoo d'accord loolu loolu moom ku ne xam na ko Israël moom songam suuf bokkut ci ay mbiram ndax fii quran mu asanatin aw min waraay ijaabin yàlla wax ci alquran noonu lañuy xeexee waaye jàkkaarloo di xeex nanguwuñu ko léegi nag mu ne ko yaakaaruma ne ah Netanyahu dof na bay song ci suuf ndax bu songee ci suuf li ko ci nar a fekk lépp mën na ko koo lijjanti bu songee ci suuf gars yi danañ ko reyal mbooloo bu songee ci suuf dana ay milliards yu jeex bu songee ci suuf danañ ko jàppal ay ay otage yoo xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay prison de guerre lay doon te su boobaa fa muy mujj moo di toog ci taabal di dialoguer ak Hamas te moom dafa jàpp ne Hamas tekkuñu dara te ni mu ko gisee su guerre bi amee ci suuf dina am israélien yu dee ñu jàpp ñu jël seen niwee denc ko fa comme niñ ko defe woon ci Hezbollah ja dina am israélien yu ñu jam gaa yi jàpp leen yóbbu ay otage dina am israélien yu ñu jàpp te duñu dee ñu yóbbu leen def leen ay prison te ginnaaw armée bi ñoom ñi ngi risqué ne ñoom d'accord ñu ci dem di guerre ci suuf mën naa am bu dee xalaatam naxu ko dana génn ci guerre boobu nga xam ne moom la waxoon ne daf koy guerre ci suuf نقلا عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية هناك أيضا أنباء عن تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة مشتركة بعد انتهاء مدة تفويض يائير لبيد وبالتالي يبدو أن نتنياهو حقق هدفا سياسيا من وراء العدوان الإسرائيلي على غزة بالتالي يريد تحقيق هدف أيضا li nga xam ne moom la ko mujj laaj wax ji jeex te jootu ko tontu mooy lii ma leen di bëgg a leeral da nga wax ne Benny Gantz bi nga xam ne moo nga foofu ci Israël ak ña nga xam ne ña nga fa nekk yor ay parti dafa mel ni kii Netanyahu guerre bi am na ci bénéfice ndax nanguwuñoon a ànd ak moom def benn gouvernement coalition te bu guerre bi amee njàqare bari problème am te bëgguñu Israël daanu danañ ko nangu loolu ndax yaakaaruloo ne bénéfice la boo xam ne dina ko am loolu la waaj loolu la ko laaj mu dagg ci mu dagg ca fu ñuy waxee mais boo boo demee ci alarab bi directement nag fañ doon waxee moom waa ji tontu na ko fa ne ko xaw ma daal danañ ànd ci guerre wala duñ ànd ci guerre ah ànd ginnaaw bu guerre bi jeexee wala déet waaye guerre bu jeex bi moom Amérique bëgg na ko geer bu jeex bi Israël bëgg na ko guerre bu jeex boobu nag Israël dafa wax ne bu waa Hamas njëkkee taxaw moom dina taxaw te loolu li muy tekki mooy ñaar ñuy xeex. kenn ki ne tey dinaa la duma ba nga tëdd ñu nekk ca xeex ba nekk ca xeex ba ba yàgg ka doon diggee duma di wax ne su fekkoon te ni bàyyi nga de man dinaa bàyyi waaye boo njëkkoon a bàyyi laay bàyyi amas ne moom du njëkk a bàyyi ndax loolu mooy wa an jana uli silmi fa laha Israël du ñuy jullit waaye jàng nañ alxuraan dañoo bëgg na yéen a njëkk a bàyyi ndax yéen a sonn amas nee na moom bu Israël teggiwul tànkam guerre bi day continuer fii ba juróom benn weer mën na koo fii ba juróom benn weer nag ni Israël di guerre moom mënu koo continuer ndax su ko continuer dina yàqule loo xam ne yàq ci alal loo xam ne yàq ci ay armée loo xam ne ah keneen ne deeti suuru Iran waaye bu dul bombe atomique ah kon dootu suuru Iran loolu mooy télévision al arabi yi indil nañu leen ko buñ noppee dugg ci beneen télévision indi leen la fa ne